sénégalais yi bokk na si leen gën a sonal di wàllu location waaye nag rawat na capitale sénégalaise bi di Dakar daanaka nit ñi luñ liggéey si lañ koy def ba tax sax nag si ay xayma mën nañu jàpp ni njëgub location yooyu noonu yokk na jóge si 100 ba si 200 pour cent si mbooleem gox yi nekk si Dakar moo de amoon na sax loi buñ fi indi woon si 2014 doon wax si wàll wu ni mel ngir nag wàññi ko si lu tolloog 30 pour cent gisin bi mooy booba léegi daal amul benn rigueur mel na ni sax mbir yi dafa daal di xaneen nga xamante ni ñoom ñooy borom kër yi ngi yokk di def leen nag locataires yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi jooy di yuuxu wàllu gars yi léegi laajuñ sax ay deux mois trois mois de avance lañ lay laaj benn mois oh, ah, benn bi courtier bi moo ko moom xam nga loolu métti na te boo amul foo dëkk amoo foo jëm nooy def ci am nañ ci wàll courtier bokk nañ aussi tamit ci neexula wax mais bokk nañ ci gën a métti affaire yi parce que léegi 4 mois lañ lay laaj ba 6 man gis naa koo xam ne 6 mois ko laaj ci kër boo xam a loolu kan moo ko mën fay ci réew mi réew moo xam ne saa boo xëyee da ngay daw dépense li nga war a lekk suba tey nga koy liggéey. loolee nag tax na ñenn si ñoom di sax sàkku si gouvernement bi mu mën a nag tabax ay kër yu bari doon ay logements sociaux su ko defee dinañ wàññi seen loxo. li may dénkaan mooy gouvernement ñoom ñoo war a am seen ay asalem tabax seeni kër bu ko defee ñu seet nit ñi kenn ku ne fa dooloo dooleem toll ñu joxe ko loolu location. loolu mooy wàññi location waaye benn borom kër bu wàññee location benn borom kër location day dara. mel na ni sax nag lu nu mel bu nu sukkandikoo si ñu yor mbir mi si wàllu état bi amoon nañu programme de construction de logement. personne ne veut rester éternellement locataire on cherche tous à être propriétaire et c'est vraiment vers cela. que nous avons reçu instruction de travailler. Et aujourd'hui, la production massive de logements va faire baisser mécaniquement la, la demande en, en, location et donc il, euh, par récursion, les prix des logements vont, vont baisser en termes de, de, de loyer. mel na ni mbir yi mu ngi bëgg yéex ndaxte jafe-jafe yi de law na ba jaaxal ñëpp demoon nañu sax nag bay jiñ baaraam ñi nga xamante ni ñoom ñooy courtier yi ñoom jàpp nañu ni kat du si lenn borom kër yi ñoom ñooy réclamer juróom benn weer wala sax ñeenti weer gën kaa yées. par exemple bon ñun ñun ñooy paye les boucas ñun courtier yi ñoo gën a sonn parce que bon par exemple mais propriétaire bi bon da nga gis appartement appartement boo xam ne moom au moins boo ko waroon jox tey normalement daanaka moom mooy ay 150 000 nga joxe 250 000 wala ay 190 000 wala 200 000 mais. da ngay demandé 4 mois yow professeur en tant que professeur nga demandé 3 mois mais fan lañ jëm ñun kon. sax amoon nañu yaakaar si. ñu mën koo wàññi gouvernement Sénégal jëloon sax ay digal ba dugaloon loi mais nag ba léegi juróom-ñetti at après jàmbat gi gën a law président Macky Sall joxaat ndigal premier ministre bu bees bii ne kat fileeg octobre 2022 mu jóg si mbile mbir ngir sax ñu mën a taxawal plan spécial ngir renforcer wàllub régulation loyer bi gën a stabiliser prix yi waane loolee bu ñu sukkandikoo si borom xam bi di évoluer sa Canada di wuyoo si Lamine Kane di comptable jàpp na ni bu mu sax jéem a dugg ndaxte lu ni mel am na lu ko jiitu wàllub location yi fii si mim réew gouvernement bi da see bàyyi loxoom ndax nag war na mën a gën a am rigueur def saytu bu am solo laataa ñu jël ay dogal moom mii di Lamine Kane la gisee mbir mi. parce que day fekk bu boobaa état moo laal ci poosam état moo nangu perte moo nangu perte impôt yi dem ci moom mais bu ngeen juutalee recherche bi bu ngeen ko juutalee maanaam ñëw directement ngeen attaqué directement joxe ay joxe ay directive ne non loyer bi wàññeeku na ñi daan fay cinquante mille léegi vingt cinq mille lañ di fay ñu doon fay cent mille ok léegi quatre vingt mille ngeen di fay bu ngeen defee loolu da ngeen ay problème jafe-jafe entre les sénégalais te loolu du réglewul problème fi ngeen war a commencé mooy d' abord ngeen xool ñuy luye ñan la ba pare li maa ngi koy répété dix quinze fois ñuy luye ñan la ngeen répertorier leen ba pare. soog a indi ay mesures incitatives ay abattement fiscal yoo xamante ne ni dina no kii am këram di ko luwe dina nooyi ki nga xamante ne ni euh, moom mooy fay bu boobaa kër dina accepter mu wàññeeku parce que état dimbali na ko ci loi euh, euh, impôt bu mu waroon fay wàññil na ko ko mais état deful dara ba pare bëgg wàññee bëgg wàññiloo ñi ñi am seeni kër loyer problème loyer bi je parle aussi ak premier ministre boo ko attaqué billahi lazi boo attaqué problème loyer bi ci la sénégalais yépp di génne dal sa kaw dañuy wax ne amoo xam-xam yow premier ministre bi yow la gars yi tey ñu lay soog a fal sénégalais yépp am ci yow yaakaar mais problème loyer bi soo ko attaqué billahi la azim si un deux mois sénégalais yépp nañ génne attaque la ñoom ci boppam ñooy génne attaqué la parce que nañu wax ne ni nga ko gérer baaxul affaire bi utiliser fii fii bul topp nit ñi wow da toog dal utiliser lii sa matière grise bi xool nan ngay régler sa problème de loyer la du ay wax ju bëri doo toppat nit ñi ni ñu nii rek exemple loyer bi war na wàññeeku rek nga wàññi ko déedéet da ngay xool war na wàññeeku wéy dinaa ko wàññi mais nan laa koy wàññee nan laa koy wàññee est-ce que bu ma ko wàññee ñi nga xam ne am nañ ay kër du leen lor ak lu mën a am daal jàpp nañu nii ñoom jot nañu nguur gi joxe woon dan délai ngir ñu mën a indil leen kayit bi naal liggéey boobu ñu amal si wàllu renforcer régulation bi waaye tamit wàññi prix yi ndax dina jur dara dinañ xam fan na wàlleent di mujj ak ay gëtëm